teewlu ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax jaajëfal askanu Sénégal mi nga xamante ne nii génn nañu ci mbooloo mu takku ci bés bii wàccal si suuf bokk ak ñun wàccal si suuf bii nga xamante ne ku jóg rek xamal na sa bopp nga jógal waaye ku jóg tamit xamal na sa réew nga jógal amul lenn lu gën a noble setal fi nga xamante ne mooy sa dëkkuwaay waaye setal fi nga xamante ne mooy sa réew ak foo mënti nekk nag ak loo mënti def di jaajëfal balaa may gën a sori ministre yi nga xamante ne ñoo doxal organisation bi bëtu bés bi ñu toll tey muy principalement ministre assainissement ak hydraulique ak ministre environnement ak transition écologique ak yëpp bépp ministère boo xamante ne impliqué na ci ndax ci solidarité gouvernementale la ñu nekk ci collégialité la ñu nekk te gouvernement bi yëpp laay félicité en premier titre le premier ministre mi nga xamante ne mooy coordonner l'action de ce gouvernement là qui en ce moment même mu ngi ci beneen site di def laa même chose bi nga xamante ne moom laay def maanaam impliqué wu ci setal suñu réew may jaajëfal rek ñëpp ñi nga xamante ne ay école lañ ay responsable école lañ ñiy yar xele yi ci set ak setal ba tax ci bés bii ñu woo leen génn leen massivement pour ñu bokk ak ñun bésu sa setal bii nga xamante ne warul doon rek benn bés ci bés yi waaye suñu yéene mooy mu nekk loo xamante ne dañoo ko dugal ci suñu doxalin ak ci suñu jëfinu bés bu ne yéene gouvernement bi ak yéene président de la république bii ma doon mooy weer wu nekk ñu am bés bu mel nii ba ñëpp ñi nga xamante ne ay tuut tànk lañu bu ñu màggee màggee xam de Sénégal weer ba nekk ñëpp dañuy jóg ci kër yi ci koñ yi ci communes yi ak fépp ci biir réew mi di setal parce que réew mi bu saltee ñu ñoo ko salteel bu setee ñu ñoo ko setal kon suñu responsabilité ñun ñëpp mooy bañ a setal bañ a waaye suñu responsabilité ñun ñëpp mooy bu saltee ñu set ñu setal ba mu set ndax suñu wér-gu-yaram daf ci am loo xamante ne ci loolu lañ tukkee ñu mën ko garanti suñu bopp lii nag défi bi mooy lan mooy naka la def ba maanaam weer wu ne ñu mën ko amee te loolu lay woo ñëpp ndax te jubante lañu woote te jubante bii du doon mbirum gouvernement bi du doon mbirum président de la république day tàmbale ci jubal ba du ñu soxlaa jubanti loo xamante ne jub ba pare ci suñu comportement au quotidien waaye day tam am solo tamit ci bu ñu dee jubanti bépp sénégalais foo mënti ne nga xam ne lii jubul yow sa responsabilité la nga jubbanti balaa nga ciy xaar benn autorité parce que gouvernement bi mënul nekk fépp waaye lu ñu mën mooy wane yoon bi wax sénégalais yi fii lañu bëgg a jëm ak yéen bu ci diisoo ak yéen saa su ne parce que xam nañ responsabilité ñu ci am responsabilité boobu ci yéen tukkee ndax seen responsabilité ngeen jël débal ñu ko te moom la ñuy doxal te gëm nañu ne doole ñuy jiital ba pare deltu gannaaw bi ñu seetaan waaye dinañ ci jàpp bu baax a baax ndax ñoo bokk Sénégal ñoo bokk lépp asalaamaaleykum wa rahmatullah